ñi egg des mais naturel. ambition donc 2011 dañ hmm. euh, hmm. comme ni ko si euh, euh, Marie. Hmm. militant di di ramper ba ñu ma donc ma leen di remercier ñoom si confiance ak accompagnement ak affection. donc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

am ambition boo xam ne amoo moyen ñun fi ñu jëm wóolu nañ suñu bopp wóolu nañu mbooloo mi ñu àndal bi ma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 donc je suis benen parti mhm. xawma benen leader pour le moment Macky Sall la xam je mhm. suis je suis libre un homme libre dama gisuma luma xam gedd wala libre. Mhm. mais fumu nek ni tant que sama yakar tassugul que ngi ci li ñu jëm nak dafa di yëfu gox ñi waral embrasser large qui yaatal donc di ci tàllal loxo PDS ci dëkk ci commune bi di ci loxo euh, Pastef dëkk ci commune bi wa MSU dëkk ci commune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 man Thierno Ndiaye tollatuma fu may bootu ci ginaaw kenn. ku ñewul botu ci yow do waaw non infrastructure mom la na fi euh, tumuranke na fa tumuran tumuranke na fa infrastructure mom tumuranke na fa lu place de l'Obélisque bi nga xam euh, tay mo euh, moo taral taaral seen commune mo ñëw taral suñu commune. Hmm. sinon il y a pas vraiment grand chose ah hein. man gisumuko gisuma ko xëy na tey nañ sant yalla avec le projet de UNFPA junne kii. Hmm. mais sinon maa ma ngi xool daal. mais su ma la déggé moy lu bari.